ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun ci émission gox bi euh, gox bi am tey euh, yéene dalal ki nga xam ni moom moo di Driss Junior Diallo nekk ingénieur financier nekk itam chef d'entreprise nekk expert en entrepreneuriat pàcc yi casquette yi moom bari na car macha allah Driss Junior ñu ngi lay nuyu di la dalal ci émission gox bi. jërëjëf euh, Mbemba salaamaaleykum auditeurs yi. Mhm. maa ngi lay nuyu auditeurs yëpp. Mhm. Euh, di leen sant di leen gërëm. Mhm. ci nekk fu mu nekk. fu mu mhm. toog. Mhm. di leen naan bon dimanche. et voilà. Euh, alors euh, laata ñuy démarrer rek dañuy souhaiter joyeux anniversaire ki nga xam ni moom moo sos groupe bi di président Mbagnick Diop ni ki démb la doon féete li nga xam ni moom moo di anniversaire am. di ko ñaanal yàlla may ko wér bàyyi ko sunu kanam baax mbaax moom njëriñam moom mooy sunu njëriñ alors Driss yow ngay euh, Junior Diallo ngay euh, ingénieur financier tey euh, buñ la waxoon tey ban regard nga am ci li nga xam ni moom moo jëm ci développement fii ci Sénégal ban regard. jërëjëf Mbemba maa ngi lay remercier ci kii ci invitation bi. jërëjëf ñoo ko ak ci question yi tamit. Mhm. bi nga wax noonu. Mhm. man sama regard ci ci Sénégal fu mu toll. ci mhm. wàllum développement. Mhm. mooy vraiment regard d'espoir. Mhm. un regard d'espoir. pourquoi parce que boo xoolee Sénégal ni mu demee. Euh, depuis suñu indépendance ba tey. da nga xam ne dañu nekk sur une pente. boo xamante ne ñoo ngi grimper. ñoo ngi yéeg ndànk-ndànk. c'est vrai nag am na ñoo xamante ne dañoo xaw a yàkkamti. du gis loolu wala du ñu mais nañu xam ni comparé parce que man dama am chance di voyager ci yenn pays <laughs> surtout sous région bi tamit damay voyager lu bëri parce que n'oubliez pas que man dama j'ai grandi un peu dans les mm-hmm. pays voisins mm-hmm. alors boo xoolee comparé ak suñu économique vraiment ñu ngi avancé mm-hmm. eh, en l'an 2000 boo xooloon Sénégal li mu doon def ci koppar ci wàllum entrepreneuriat par exemple dans les années 97 ba 2000 c'était autour de trente millions de CFA. nga xool ñu ñëw deux mille cinq mille six. deux mille ñu yëggal ko de million ñëw ba cinq milliards ensuite de dix milliards. di ko def ci jeunes yi ci femmes yi. ak ci entrepreneuriat boo xoolee bombe. léegi tey en deux mille vingt. ñu ngi autour de quatre vingt milliards. est-ce que yaa ngi bon boobu lu ñuy wax tey ñu ngi yëg ndànk-ndànk. tey Sénégal. meluñ comme de mille l'an deux mille. tey jeunes yi war a nit boo xamante dafa bëgg a def entrepreneuriat. Mhm. am na ay structure yoo xamante ni mën nañ ko déglu. Mhm. am na foo xamante ni mën na dem. Mhm. wax soxlam loolu c'est important. am na dëkk fii dëkk yu bëri fii amuñu loolu. mais fii Sénégal léegi am nga foo xamante ne mën nga dem wax sa soxla mm-hmm. wax ma la dinañ ko dinañ ko faj de. Mm-hmm. mais au moins di nga ko mën a exprimer gars yi déglu la. Mm-hmm. ñoo orienté la tuuti. même suñ la joxul li li nga bëgg. mais au moins di nga am ay orientation et loolu c'est très important sur l'entrepreneuriat. parce que n'oubliez pas que entrepreneuriat. c'est d'abord une idée. mooy xel la xalaat. nga am ensuite la volonté. pour pratiquer idée boobu. loolu mooy entrepreneur. mais tey dañu gis ni femme boo gis ngoola nga dalal ko dalal naa fi pas mal de personnes. Hmm. ay jigéen yoo xam ne dañuy yëngu ci wàllum entrepreneuriat. Hmm. ndax dangay jug rek. Hmm. def ko. non doo jug rek def ko loolu laa leen wax maanaam entrepreneuriat domaine boo xamante ni domaine sensible amul benn règle directe bu lay naan booy dugg entrepreneuriat fii ngay dem A B C. non amul entrepreneuriat dafa bëri ay mbir dafa bëri ay façon dafa bëri ay kii mhm. mais li wóor te wóor mooy lu njëkk li ma wax da ngay am mhm. idée mhm. nga am volonté idée boobu ak volonté bi moo lay permettre nga toog xalaat bind sa projet wala soo ko mënul bind nga mën ko expliquer ay expert ñu bindal la ko bu ñu la ko bindalee ba pare xam nga ci bind boobu. Mhm. foofu la affaire yi nekk. Mhm. ci bind euh, projet bi foofu la ñu koy planifier. Mhm. foofu ngay wax lii nga bëgg def ci sa projet. nii nga koy defee. ni euh, lii moo war a dugg foofu ci koppar wala ci ay matériel tey ci loolu tey biir Sénégal tey ndaw yi euh, maanaam takku nañ ci li nga xam ni nag moom moo jëm ci mbirum entrepreneuriat ndax tey. jéego bi nga xam ne ndaw yi waroon nañ ko am ci entrepreneuriat ndax mi ngi fi tey. jéego jéego yaa ngi fi. <laughs> loolu laa la wax jéego yaa fi donte mun nañ ko améliorer. <laughs> comme ci naka. voilà mun nañ ko améliorer par exemple ci ci ci spécialisation yi. <laughs> Mhm. parce que dañ ko xam am na ay structure yu bëri. Mhm. mais dañu war a def dañu war a indi ay spécialisation mhm. euh, yu dëgër ci structure yi. ba pare ñu am yoo xamante li ñuy wax comment dirais coaching c'est-à-dire ñu méngale mhm. formation bi mhm. ak réalité tàggat bi daal maanaam tàggat mu mhm. tàggat bi ak réalité euh, suñu économie bi duñ jëlee fo tàggat bi comme président Macky Sall lu mu commencé def ni instant parce que danga gis ni président Macky Sall dafa indi euh, lu ñu waxante ni programme boo xamante ni euh, école entreprise par exemple projet école entreprise boo xamante ni élève bi. Mhm. di nga def euh, nangami jour ci école bi. def mhm. théorie. Mhm. mais quatre-vingts pour cent ci formation bi ci terrain bi la koy def. ñun par exemple dañu am chance. Euh, gis programme boobu ci le terrain boo xamante ni dañu am ay entreprise boo xamante ni. Euh, avec des lycées agricoles par mhm. exemple boo jël lycée agricole de Sédhiou wala mhm. lycée agricole de Bignona mhm. wala lycée agricole bu Kaolack boo xoolee nga xamante ne ay entreprises yoo xamante ne euh, jot nañ def ay ak ñoom ñoo xamante ne dañuy dugg ci par exemple su fekkee agriculture la ci tool ñuy liggéey foofu pour cent du temps et pour cent du temps ñu def théorie bi ci lycée bi donc programme boobu te état bi dafa def benn bourse ci ci loolu. Mhm. parce que bi ci programme boobu day am na euh, am na benn koppar. ak mhm. na benn koppar bu muy jox étudiant bu nekk. pour mhm. encourager ko. Mhm. dafa mel ni comme bourse étudiants yi nu ñu amee bourse nii. ñoom tamit bourse boobu moo gën a intéressant loolu daf leen gën a faciliter ñu gaaw adapté li nga xam ne moom moo jëm ci entrepreneuriat bi. exactement. exactement boo xoolee ba ci groupement de transformation. xam nga groupement yu bëri dañuy def transformation. ñuy jël euh, dugub bi di ko transformer def ko araw. ñuy liberté bi def ko tigga digga def ko mhm. lii def am na ay bëri mhm. transport mais amuñu moyen par exemple pour jël ay personnel mhm. di leen tàggat xam nga boo jëlee nit ki indi ko sa entreprise pour pour nekk mu nekk apprenti sax il faut nga jëndal ko ndekki ay añ tout ça souvent entrepreneur yi amuñu moyen yooyu donc moo tax état dugal bourse boobu foofu étudiant bu nekk dina am quarante mille par mois par exemple élève bu nekk dina am quarante mille di jàng di liggéey en même temps. di liggéey en même temps. ok mbokk yi 88 le 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 yéen tam mun ngeen bokk ci émission bi dugg laaj ko ay tontu wala ngeen xool ci li nga xam ne moom moo jëm ci ay activité am ngeen laaj ko ci ay question dañuy desandi ci wàllu secteur bi tey boo xoolee fii Dakar ñu bari. Euh, li nga xam ni moom moo jëmoon ci entrepreneuriat mu di femmes yi yënguwuñu ci woon wala buñ ci doon def amul woon ay jéego waaye léegi daa mel ni femme boo bëgg fëgg buntam rek danaa la mi ngi yëngu ci entrepreneuriat kon dafa mel ni affaire bi mi ngi dox nit ñi ñu ngi siy gis seen bopp. absolument nit ñi ñu ngi gis seen bopp mais comme je l'ai wax li ma waxoon sànq. Mhm. dama ne nit ñi. ñu jël auditeur bu njëkk salaamaaleykum. Euh, waaleykum salaam. sëñ bi euh, kooku monsieur Dramé. waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. alhamdulilah delloo ziar. Mhm. lan nga ñu mën a wax tey ci Driss Junior mi nga xam ne wax dëgg yàlla. Mhm. nga xam ne moom nga dalal. Mhm. allo. maa lay dégg bu baax. ki nga xam ne moom nga dalal. muy euh, monsieur Diallo Idriss. maa ngi koy nuyu. Mm-hmm. bu baax di ko sant. Mm-hmm. bokk na ci jeunes yi nga xam ne tey Sénégal am na espoir ci ñoom. Mm-hmm. espoir boobu am naa yaakaar ne soxla bi nga xam ne chef de l'État le président Macky Sall. am vision bu toll ni développement. gis des ingénieurs. gis des experts. ci démarche yi nga xam ne tey. besoin imminent hmm. par rapport population hmm. ak groupe cible yi hmm. wax dëgg yàlla moom mi nga xam ne tey mu ngi koy dox te ñu ngi koy gis ah ñu ngi koy féliciter ki doxalin bi loolu deuxième aspect moo di taxawaayam xam nga ni yi ñooy gërëm donte sole nanu ñu ngi koy gis ñu ngi koy dégg. ñu ngi koy nemmeeku à chaque fois. population bi di ko. xam ne moom. ki xam-xam. boobu deuxième fànn euh, deuxième fànn la. ñetteel fànn bi moo di lan. te. rëcc na ñu ngi koy jégalu xëy na ñàkkul ni dina ñëwaat. donc yii yëpp ay encouragement la yoo xam ni boo toogee fii dañ lay wax kon mel na ni am na ñoo xam ne ñu ngi lay bàyyi xel gis ñu la waaye tur bi mi ngi dem ndax ingénieur xam-xam bi nga am ci wàllum ingénieur financier bi nga doon la moo tax dañuy jëlaat mbokk moom rek allo salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam wa euh, soxna si tur bi ak fan nga ñuy woowee. allo. waaw tur bi ak fan nga ñuy woowee. Euh, man euh, docteur Anne Seck. Mhm. Ndiaye mhm. laa tudd. Mhm. Euh, maay directrice pharmacie nationale d'approvisionnement. ñu ngi lay dalal jàmm. maa ngi leen di nuyu bu baax. li tax ma dugg nag. da woote tey. ci gox gi. seen émission boobu. émission bu am. maanaam boobu am. Mhm. Euh, important. Mhm. waaye ngeen invité suñu mhm. benn rakk. rakk bu ñu xam bu baax. ci euh, xarañam. ci euh, bëgg réewam. bëgg goxam. te xam li muy wax lan la. maa ngi koy nuyu bu baax. di leen ñaan ngeen nuyu ma su ma nuyoo. bu baax ci moom. dañ ko dégg. seen thème bi ngeen wax nag. Mhm. Euh, na ngeen ma baal ma nuyu itam borom kër gi. Mhm. parce que moom itam ku yëngu la ci développement. Mhm. xaw ma ko waaye maa ngi suivre bu baax li muy def. surtout ci promotion. Euh, jeunesse bi. ak leadership. lu am solo la. Euh, ci Sénégal ndax noonu la ñuy tàggatee suñu jeunesse ba ëllëg ñu mën a yore réew mi. maa ngi ko ci félicité bu baax. bu ma dellisee nag ci seen dama ci bëggoon a wax tuuti. Mhm. ndax lu am solo la. Mhm. ndax euh, euh, ci thème bi. Mhm. dafa ci am pàcc yu am importance mooy maanaam jigéen yi ak xale yi. ndax euh, ci sama xalaat bu gàtt. jox leen jumtukaay yi nga xam ne moom lañu ñu war a liggéeyee. am na solo. maanaam di leen jàppale ba ñu. bind seen ay projet mhm. ba ñu financé ko mhm. waaye am na lu am importance ci sama gis bi mhm. mooy accompagnement bi ndax euh, euh, suñu seetee bu baax projet yu bare lii tax du am pérennité day fekk euh, xale yi bu ñu leen joxee moyens yi war management bi ñu war a ñu war a am les outils de management li ñu war a am mhm. duñ ko am mhm. gis naa ne ci jigéen ñi parce que ñun dañuy liggéey tam dinaa ci yëngu bu baax mhm. surtout ci xale yi ak ci li jigéen ñi dama euh, remarqué également jigéen ñi il faut ñu jàppale leen non seulement ci formation bi mais il faut aussi ñu alphabétiser leen parce que suñu xasee ba tëral ay groupement mhm. di liggéey mhm. ñu jàppale leen ci financement bi mhm. am na microgestion boo xam ne ñoom ñoo ko war a mën a defal seen bopp te boo seetee boo demee ci suñu gox yi gox yi gën a sore euh, jigéen ñi jànguñu euh, ñu bind euh, te yore seen comptabilité bi dafay metti tuuti Mm-hmm. moo tax man mm-hmm. euh, toujours dama ci def plaidoyer mm-hmm. pour que ñu di leen accompagner ci euh, financement bi dëgg la ci projet bi ma aussi ci suivi projet bi loolu daal laa ci bëggoon wax di leen félicité waat Bemba euh, ci émission bi nga xam ne moom ngay euh, animé le jërëjëf di félicité doomu marsasum bi nga xam ne mhm. ñun ñoo bokk suñu gox mhm. mu nekk xale bu baax xale bu yaru xale mhm. bu am xam-xam ku modeste aussi te macha allah ku bëgg goxam bëgg askanam euh, wasalaam jërëjëf ñu ngi koy gërëm di ko sant xam nga lii tamit nga may ma rek euh, deux mots honneur la directrice pharmacie nationale d'approvisionnement dugg en direct woote di joxe li nga xam ne nag moom moo jëm ci xalaatam ci émission gox bi donc ñun yi euh, feexte lay gën a doon ci ñoom waaye tey yow boo déggee kàddu yi yi nga xam ni moom jigal na moom yor euh, direction di woote euh, ci émission yi di la soññ si la li la mel nii lan lay def tey lan lay def motivation la wala yokk courage vraiment vraiment li motivation bu rëy la <laughs> contentement bu rëy rëy la. <laughs> parce que lii de xalaatu ma ko woon man bi ma invité xalaatu ma woon vraiment dina am sa ay appel. <laughs> ba directrice pharmacie nationale di woot. Mhm. vraiment moom docteur Annette Seck Ndiaye. Mhm. ma di ko remercier di ko féliciter. Mhm. di ko remercier bu baax ci appel bi. mais di ko remercier ci activité tamit yi mu nekk di def. parce que comme ni mu ko waxee. man je suis de Marsassoum waa Marsassoum la ma yaa ngi de Sédhiou. Eh, ma profité di nuyu population Marsassoum bi yëpp. Mhm. parce que xam naa ñàkkul ñu bëri dinañ ko déglu wala. xaw ko mhm. xool tuur ci réseaux sociaux yi. Mhm. maa ngi leen di nuyu bu baax. a commencer par le premier magistrat de la commune mooy le maire Seyni Mandia. boo def ay jéeg. mais docteur li mu wax fii vraiment importance parce que dama koy gis tamit ci terrain bi. yor ay GIE yor ay groupement yoo xamante ni mu ngi leen di animer ko waxee. Euh, mu ngi leen di tàggat. di ay fabrication de saabu. fabrication yu bëri ay transformation mhm. moo ngi tàggat tamit ci gestion lu mu wax noonu mhm. mu ngi leen di financer tamit loolu mhm. tamit il faut que wax ko vraiment c'est quelqu'un qu'il faut remercier boo mhm. xamante ne mi ngi def politique Macky Sall bu baax mhm. bu baax ci pharmacie bi mais aussi ci terrain bi mhm. te moom yemul Marsassoum rek mu ngi koy def Dakar ñàkkul rek semaine passée mu ngi woon Parcelles Assainies di def ay activité muy def activité ay Ziguinchor Sédhiou ay yeneen i dox adéyaan vraiment macha allah docteur euh, jërëjëf di remercier beneen auditeur bi tam bi woote jàpp ma woon tuuram mais moom tamit li mu wax noonu xam naa auditeur bu nekk côté Kaolack Télécom Sénégal am na chance liggéey mhm. ak euh, FONGIP ci mhm. loolu mhm. ak euh, PUDC mooy FONGIP boo xamante ni euh, Doudou koy nuyu moom tamit bu baax suñu directeur général boo xamante outil la boo xam ne président moo ko fi teg te muy def comme outil yu bëri ay activité yu am solo ci réew mi moo tax ma ne la sànq entrepreneur yi waruñu jaaxal waruñu jaaxal lu bëri kon donc am nañ ku leen accompagner ñoom amul lu ñuy ragal soobu ci entrepreneuriat amuñu lu ñuy ragal dañu war a de conscience parce que ñu dem surtout ci information bi. Mhm. parce que xam nga lu bëri ci entreprise yi par ci structure publique d' accompagnement yi. Mhm. jigéen yi ñooy ñoo fay dem. Mhm. wala góor yoo xamante ne ñu xaw a âgé tuuti. jeunes yi du ñu dem foofu lu bëri. parce que généralement jeunes yi. rarement la dem vers l' mais ñoom ñooy gën a wax ci réseau ñoom la ñuy gën a damay ñaax jeunes yi man leen nañu ñëw approché ci structure yi nañu ñëw approché docteur euh, Anek lu mu wax nii mhm. ñu apport structure yi mhm. fii am na structure mhm. wax naa sànq FONGIP yenn FONGIP nous avec le FONGIP on a pu faire plus de mille villages ba nga xamante village yu bëri def nañ foofu ay jéego accompagner femmes yi am am accompagnement mooy euh, formation bi d'abord mais am na tamit financement financement bu ñu ko defee ba pare day am suivi post financement man par exemple nekkoon naa pendant longtemps chef de département sur poste financement mhm. ci FONGIP mhm. boo xamante donc tey tey am na yeneen structure uh-huh. président Macky Sall dafa jël jógal voilà yeneen ak FONGIP ñu ngi fii di accompagner entreprise bi entreprise yi nga xam ne ñu ngi bëgg a suuxat ñu ngi leen di jàppale waaye bu ñëwee tey ci mm. gox ak goxaan yi ndax li ngay wax ni dafay interpeller ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite gox ak goxaan yi may maire yi mm. tey est-ce que ñoom pour gën a euh, suqali seen gox yi dinañ approché wu ci su mel ni yéen laaj leen seen xam-xam mbur ñi mën a jëmal kanam seen li nga xam ne nag moom mooy jëm seen diwaan yooyu ci gox bi waaw collectivité locale yi collectivité territoriale yi comme mm-hmm. président Macky nu mu koy waxee mm-hmm. collectivité yooyu yoo xamante ñoom seen premier soxal mooy mm-hmm. def seen commune bi nekk commune exemplaire mhm. nekk commune boo xamante dina am emploi mhm. commune boo xamante dina am développement mhm. te loolu il faut que ñoom ñu lëkkaloo ak structure yi ma wax nii euh, boo xoolee ci FONGIP waa FONGIP ñoom euh, daan nañu defoon nañu programme boo xamante ni ñu ko tuddee Fogaville mooy fonds de garantie pour les villes boo xamante ni dañuy lëkkaloo ak benn ak commune commune Sénégal yëpp dañu éligible ci fonds boobu dañuy lëkkaloo commune bi indi fonds yëpp teg ci beneen fonds. Mhm. ñu def ko benn fonds de garantie. Mhm. ñu loger ko ci benn banque. Mhm. banque bi ci fonds boobu la basé wu financer trois fois plus de ce fonds là. par exemple bu ñu defee quinze millions ci banque bi. banque bi moom day financé ci acteurs communaux yi. Mhm. acteurs yi nekk ci ci commune boobu. Mhm. dañ koy financé à près de millions. Mhm. donc trois fois plus que le montant qui a été mis en place. donc boo xamante ni eh, benn ingéniosité financière boo xamante ni vraiment c' un fonds multiplicateur de trois qui est important. donc fonds yi mu ngi koy def. yeneen structure tamit xam naa ñu ngi def donc maires comme on a dit tey suñu maires yi. c' est des boo xamante a nekk waru maire tey euh, la technologie l' ñu du question politique bi rek. mais il ko ñu dem ci développement bi. Mhm. ci lëkkaloo ak banques yi ak mhm. structure d' accompagnement. Mhm. ngir mën a accompagner nit ñi femmes yi yow wax nga ko sànq def nga quatorze régions sous région bi sax maanaam laaj nga laal nga si ay dëkk dëxaat yoo xam ne bëri na mais tey ci région yi bu ñu doon xool am ana ban région la xam ni euh, li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum développement. askan wi ci région boobu ñoom jël nañ ko en compte tey ci li jëm ci wàllum développement boo xoolee mbay mi am na région yoo xam ne ñoom bàyyi bàyyiwuñu ko ba tey ci mbay mi lañ gën a nekk ba tey di sukkali seen gox bi. waaw macha allah région yi vraiment population yi nekk ci région yi acteurs économiques partout sur les quatre régions nit ñi ñu ngi yëngu-yëngu. <laughs> ñu ngi liggéey même région Dakar boo xamante ni euh, bëriwul li muy def agriculture. <laughs> léegi commencé nañ ko di ko def non non ñu ngi koy def mais xam nga rek daan nañ ko def. <laughs> Mhm. zone des Niayes fii la commencé. Mhm. mais avec l' explosion immobilière. Mhm. Euh, comment dire commencé yàqu voilà dañu mhm. terrain yi dañoo wàññeeku gars yi ñuy tabax di dugg ci ci tool yi di tabax. donc moo tax affaire bi xaw a wàññi. mais Dakar c' était une région vraiment de production horticole. assez importante. mais yeneen région yoo xamante ni boo demee fii ba Kédougou. man dem naa Kédougou plusieurs fois nekk naa foofu. Salémata ak Saraya boo xamante ni jigéen ñi ci montagne yi la ñuy bay. Euh, ci lu sori oui ñuy bay sorgho ko transformer foofu mhm. di ko yéenu ci biir montagne yi mhm. montagne yu gudd mhm. ay Falémé yooyu di ñëw ba Kédougou ville pour mën koo jaay ñooñu jël ko foofu def ko ci oto yi oto malien yi indi ko fii ba Dakar donc loolu c'est des femmes courageuses ñu dem boo xoolee Casamance tamit di ci région yëpp nag ci biir Casamance région de Kolda par exemple ak ceeb mi avec la Sodagri boo xamante ni dañuy aménager plus de cinq mille hectares d'aménagement cinq mille hectares production ñu ngi bay ceeb bi di ko produire. Mhm. loolu boo demee da ngay gis femmes yi gis paa yi vraiment nit ñu ngi liggéey bu baax. Mhm. ñu liggéey donc renforcement comme lu ko état bi comme état bi état bi ñu ngi def koy gën a mhm. dem ci yeneen régions yi. macha allah parce que suñu région bi Sédhiou tamit. vraiment. nit ñi dañu nekk bi nit ñi ah, voilà di gis seen bopp waaw dak CFA mais même mhm. bu dul loolu sax mhm. dangay dugg ci faro yi li ñuy wax faro yi mooy mhm. rizières yi da nga xool jigéen ñi vraiment ni ñuy liggéey foofu bu faro yi jeexee ñu dem ci comment dirais euh, def comment jardinage maraîchage bi di ko def ba nawet bi dugaat ñu delluwaat ci faro yi vraiment c'est nga dem Kaolack man nekk naa Kaolack pendant deux ans nekk foofu coordonnateur de programme zone centre bi Kaolack Diourbel Touba dem mais da ngay xool nit ñi nit naka liggéey sawar sawar mhm. ci mbayum euh, gerte bi mhm. mais ci mbayum kii bi tamit nu mu tudd amul jigéen ak góor ñëppay liggéey bi ñu ngi liggéey di transformer mhm. gerte bi def ko seg segal bi mais vraiment c'est extraordinaire mais moo tax état bi mu ngi dolli ah man je remercie encore l'état ñu ngi def jéego yi mais est-ce que tamit ko moderniser jotul ñu gën a yokk ñooñu ay jéego ngir liggéey bi métit bi mu waroon am ñu wàññi ko soulager ko tuuti ab yi ñuy soxla ñu gën ko mën a yombalal ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soxla. effectivement mhm. wax nga métier bi loolu mooy le fond du problème. boo xoolee même agriculture bi tey. Mhm. ñu bëri jeunes yi euh, ñu xaw ko daw tuuti. Mhm. Euh, pénibilité bi. moo tax boo déggee président Macky Sall ci politique am. ci plan Sénégal émergent dans la transformation structurelle de l' économie. am na pàcc bu important boo xamante ñu ne dañuy wàññi. Mhm. en tout cas réduire ou en tout cas annuler totalement pénibilité mooy métit liggéey. Mhm. agriculture mhm. parce que dafa jafe nga dem agriculture di jëm di gor di jël gaz ay mel na il faut que ñu indi ay outils yu moderne am nañu espace yu yaatu. ñu indi ay tracteurs yu moderne indi ay machines yu moderne yoo xamante ni mun nañu aménage bu ñu aménager parce que def ay adduction d'eau yu important. bu ñu bàyyee ba pare décortiquage bi tamit. décortiquage muy mbokk muy gerte. mu am ay équipement yu koy def. Mhm. boo xool loolu soo ko defee. Mhm. nga wàññi pénibilité bi. Mhm. di nga gis léegi jeunes yi quitté euh, ci marchand ambulant yi. jeunes yi quitté ci dakaar njaay gi. ñu dem ñu dugg ci àll bi. di commence parce que dëkk bu dëkk. ñu jël développé ñu jël mbokk moom ci ligne bi salaamaaleykum allo salaamaaleykum salaamaaleykum. rëcc na ñu continuer yaa ngi woon ci euh, président bi jàppale ñi nga xam ni nag moo di gox ak goxaan yi ngir euh, li ñu euh, fas yéene am ñu gën ko yokk si jumtuwaay. waaw ñu gën ko yokk rendre plus. bi. ñu ngi lay nuyu soxna si. oui. Mhm. tur bi ak fan nga ñuy woowee. allo allo oui ñu ngi lay dégg bu baax Rewmi FM. bisimilah. allo allo waaw ñu ngi lay dégg bu baax. waaw ah, sëñ bi na def. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. dama bëggoon a bokk ci émission bi. acca bisimilah. soxna si lan nga ñu mën a wax waaw waa ñu ngi lay déglu bu baax lan nga ñu mën a wax ci man maay tudd Khady Diarra mhm, bisimilah euh, maay dëkk Sédhiou mhm. euh, macha allah maa ngi rafetlu seen émission bi jërëjëf di nuyu ki ngeen invité muy Driss euh, Junior Diallo jërëjëf mhm. Euh, nekk koo xamante ne entrepreneur bu baax. Mhm. buy jàppale jeunesse bi. Mhm. di jàppale euh, doomu réew mi. Mhm. Euh, parce que ku ne entrepreneuriat. ñëpp xam nañ ne da ngay saxel day dem ci jigéen yi. saxel yi saxel day dem ci jeunesse bi. donc lu mel ni jeunesse bi foog naa ni war nañ xoolaat bu baax a baax a baax a baax. dellu suñu gox. dellu suñu réew. ndax. kenn mënul defaral sa réew. Mhm. lu dul yoon bi fa dëkk. Mhm. ku mel ni Idriss Diallo. Mhm. ñëpp xam nañ ni doomi réew la. Euh, mënoon na dem beneen dëkk di fa liggéey. mais bu dellu si nara dem goxam. nara nara liggéey pour réewam. je crois que modèle la loo xamante ne ñun jeunesse yi war nañ ci jàpp lu baax a baax a baax. Euh, ci côté euh, GIE yi groupement associatif yi. nañ nañ nañ nañ ci jàpp lu baax a baax a baax a baax a baax. man. loolu laa amoon lu ma ciy joxe ci contribution. Mhm. bëggoon naa vraiment ma suivre leen mais. Mhm. xam naa fu ma nekk moo tax réseau bi mënu ma woon capter euh, réseau bi bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf sant nañ la gërëm la Idriss. kii loo koy wax. wax naa di ko remercier rek vraiment moom soxna si Khady Diatta. Mhm. vraiment. def na témoignage mhm. <laughs> bu bu bu vraiment bu neex dégg mhm. macha allah comme mhm. ni nga ko waxee moom tamit xam naa c'est une femme battante une femme euh, ci GIE yi lañ euh, nekk certainement ci GIE ci euh, la nekk kon yow da ngay tàggat accompagner ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum entrepreneuriat. waaw ñun loolu mooy suñu métier comme ni nga ko waxee man à la base ingénieur financier la mais dafa nekk ma bëgg agriculture. Mhm. bëgg développement rural. dinañ ci ñëw am na am na li nga yor lu seeju lu lu dinañ ci ñëw. <laughs> bëgg village yi. Mhm. man je j'aime les villages parce que comme euh, xam nga Houphouët-Boigny mhm. en Côte d'Ivoire daan na wax. le développement. Euh, de nos pays repose sur l'agriculture. te man loolu dama ko gëm. waaw ah, ah, Cissé Dia daan na ko wax Mamadou Dia. mu Cissé Dia daan na ko wax def politique agricole important. parce que il faut que ñu produire. xam nga boo toogee nga ne instant bi nga da bëgg a uti mango doo ko am. Mhm. parce que ñun dañu tàmm mango ci waxtu mango rek la war a nekk. Mhm. or instant bi war nañ am mango. Mhm. douze mois sur douze. ci naka war nañ am justement ci politique de développement agricole la ñu wax. mangue war nañ am na plusieurs variétés de mangue <laughs> léegi boo xamante ni mën nañ am variété yooyu suñu ko ko kii suñu defee politique boo xamante ni mhm. bu bu lalu bu mhm. baax ci mhm. développement ñu am mangue yoo xamante dañuy produire toute l'année ñu am ay variétés chaque fois variété fraîche toute l'année et ça c'est l'agriculture parce que dans un pays il faut d'abord produire au maximum. Mhm. bu ñu produire ba mu bëri nit ñu consommer. Mhm. bu desee rek di nga am ay nit ñu ñëw pour transformer la. Mhm. mais tant que produit ba muy des. transformation bi dañ koy wax nii rek def ko mais du am doole. il faut que nga lekk ba suur nga xalaat transformer dem jaay. donc moo sax il faut mmh. renforcer la production mmh. locale et ce sur toutes les variétés euh, locales yéen daa mel ni doo da li ngeen di toog Dakar bariwul da ngeen di génn ci région yi di xool ndax mbir yi ñu ngi dox chaque fois. Hmm. ci FONGIP nga nekk directeur commercial nga fa. Hmm. des fois ci ay Sédhiou ay hmm. yeneen Kaolack yeneen yi ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi nu ñuy euh, nu ñu gëmee liggéey yi ñi nga xam ne nag ñu nekk ci réewum taax mi euh, lan mooy lan moo changé lan moo changé léegi. oui comme ni nga ko waxee ñun euh, vraiment lu ñuy de nekk Dakar euh, daanaka du du bëri. Mhm. ñun sax duñ ko bëgg mu mu mu mu. voilà mu mu yàgg lool. Mhm. parce que pourquoi dañu am cette passion. Mhm. d'être en milieu rural. cette passion d'être dans les régions. pour pouvoir euh, accompagner les acteurs. parce que comme ni nga ko waxee acteurs dañu soxla accompagnement. da ngay dem ci benn région wala ci benn gox boo xamante nit ñi bëgg nañu entreprendre bëgg nañu def leneen wala ñu ngi def leneen. yoon bi voilà koy def mais am na benn technique bu ndaw boo xam ne mën na leen jàppale ñu multiplier ko. Mhm. wala ñu am benn visibilité bu rëy. Mhm. ñu mën a jaay. Mhm. ma dama dem euh, ma benn jour côté Kolda bi fee. ma may romb ni rek ma gis ay femmes di jaay dara ci tali bi ma taxaw. ak sama chauffeur ma xool ndekete kii la lem. ma xool lem bi mais ñooñ benn benn groupement espagnol moo ñëwoon foofu. tàggat leen ci lem boobu. dañu koy produit boo xamante production extraordinaire. Mhm. mais boo ko gisee dafa rafet mais ñoom fu ñu nekk noonu. Mhm. mais du ñu am client boo xamante ni dina xam valeur boobu. mën mhm. na ko yéen seen affaire bu demoon Dakar dina neex ma jël ak sama gars foofu ñu jënd vraiment ay valeur bu tàkku. man lem boobu dama ko indi fii ba fii ma def exprès def ko sama statut WhatsApp. mais nit ñi di ma woo fu nekk. Mhm. mais ñi ma ko servi ñu ne mais lem bi fan nga ko jëlee ma ne ko lem bi de Casamance laa ko jëlee donc pour dire que mhm. dañu am ay acteurs yoo xamante ni dañu maîtriser seen mhm. activité mais euh, maîtriser wu wala administration wala côté public wala côté marché yi parce que c'est des gens qui vivent dans le milieu rural mënuñu fa jóge foofu lañ ko mën a produire donc il faut que mu am ay acteurs yoo xamante ni dinañ def link bi moo tax ñun on a expérimenté un, un programme aussi toujours en Casamance parce que expérience yu bëri foofu la ñu koy def. Mhm. dañu jël des jeunes sortant d'université. Mhm. sur plusieurs domaines ñii comptabilité ñii euh, comment dirais-je euh, réseau digital mm -hmm. networking mhm. ñii journaliste ci rajo yi mhm. ñu bëri ñu boole leen ak ay femmes mhm. femmes qui font des transformations ak femmes qui font du maraîchage ñu leen mais yéen jeunes yi am ngeen xam-xam kii mën na def comptabilité mais jàppaleel groupement bi ñu tenir seen comptabilité mun ko yow mën nga def publicité ci net bi di wax ci réseaux sociaux jàppale leen seen produit nga foote leen nga jow ñu def link boobu mais link boobu production jigéen ça paye ça paye énormément mhm. parce que jigéen li ñu lépp lu ñu produit wala li ñu transformé mhm. mais c'est rapidement kii daf koy publier ci page am WhatsApp wala mhm. ci Facebook bi rek nit ñi commandé ko mu ñëw mu indi leen ko Dakar wala mu yóbbu leen ko Ziguinchor seen comptabilité boo xamante ni amuñu woon comptable léegi commencé am comptable xam visibilité xam ah, au mois de décembre lii lañ defoon comme production lii lañ defoon comme mhm. dépense mhm. ñu commencé gis mois de janvier ainsi de suite mhm. donc commencé nañu am une certaine image de leur activité ce qui n'était pas le cas léegi xam nañu ah mois bi produit lañu mois bi dépense nañu attention léegi il faut que ñu defee ko nii faut que mais loolu day permettre tamit jeunes yi jógee ci université mhm. mhm. am seen premier emploi mhm. sans que ñu jaar ci structure dem ci entreprise yu mag yi te entreprise yu mag yi dañoo fees boo xamante ni euh, bon dañ ko dañ ko expérimenter nii rek parce que on voyait il fallait faire mais loolu xam naa état état bi peut-être certainement ñu ngi koy xalaat euh, dinañu ko fësal wala dinañ koy gën a yaatal. Mhm. Euh, en tout cas parce parce que président Macky Sall dafa am ay wax nga <laughs> alimentaire. donc suñ la déggee bu baax kon euh, bu Driss Junior moom day yëngu ci wàllum développement waaye ci mbay mi moom euh, ci la gën a accentué wu ci li nga xam ne moom moo jëm kon daal su ma la déggee mooy waxu Houphouët-Boigny bi ba tey loolu lu dëggu la ci yow. waaw le développement de nos pays repose sur l'agriculture vraiment loolu lu dëgg la ci man. man loolu gëm naa ko te comme ni nga ko waxee. Mhm. même la technologie l'avancée technologique est venue d'abord de l'avance de la production agricole. Mhm. nit ñi dañu produire. Mhm. ñu gis ne am nañu production bu baax. bëri na ñu xalaat ne lii foog ñu transformer. ci la eh, ñu gis ingénieur informatique pour ñu xalaat naka la ñuy créer machine. Mhm. pour transformer loolu. Mhm. pour ñu ne leen tamit pour ñu mën a produire bu bëri. Mhm. ban machine mooy ñëw jàppale ñu pour production bi gën a yaatu. foofu la affaire bi commence toujours c' est l' agriculture qui est à la base. toujours parce que c' à partir de l' agriculture que l' armée. Ah, d' alors c' est à dire que l' armée euh, ak l' armée des États-Unis dañuy war ni dañu xam ni il faut que ñu produire lu bëri pour may soldats yi lekk ci guerre mondiale yi. dem leen bay ñoo gis ne pour bay bay seen loxo bi rek du dem ci la ñu xalaat comment créer des engins. Mhm. ces engins ces tracteurs la ñoo am idée bu pour ñu def créer ay ay chars de combat ñoo def ñu transformer créer fii ay avions de mhm. guerre ay bombardiers ay mel mhm. donc tout part de l' agriculture. pourquoi il faut développer. donc ñun bu ñu développer l' agriculture di nga gis suñu étudiants nekk en étudiant en informatique. rapidement dañañ am matière mhm. parce que dinañ gis ne lii mhm. mën nañ xalaat def foofu benn programme boo xamante ne mën na jàppale jigéen yi fii fii mhm. wala jeune bi ñu def ko ñuy def programme des fois dañuy bëgg ñoom it euh, gouvernement bi di leen jàppale ci koppar mais dañu naan koppar gi souvent moom mooy des comme bu la comme DER bu la waree financer loo xam ne lu war a toll ci cinq millions la waaye du loolu du mat cinq millions des fois dañuy metti ñoom dañuy dem outil de gauche à droite ut xaalis pour comble loolu est-ce que tey banques yi jotul ñoom ñu dugg ci ñi mën a lebal nit ñi xaalis ñu mën a liggéey di delloo mais dañuy seen taux yi moom mooy xaw a métti ba ñenn ñi dañuy xaw a ragal ndax yéen FONGIP da ngeen di yombalal li ni mel di accompagner entreprise yooyu. waaw am nga en matière de financement. Mhm. comme ni ma financement facteur yi fay dugg éléments yi fay dugg dañoo bëri. Mhm. moo tax ma ne la sànq entrepreneuriat c' est d' abord une idée. Mhm. da nga am idée pour résoudre un problème dans ta société. da toog ni nga ne par exemple ñun dañoo toog par exemple ñu ne ah région de Casamance. Sédhiou Ziguinchor. c' est pas normal que ba tey acteurs yi ñu am ñu dem jënd ay jaxatu ay kaane. fii ci région des Niayes. ñu mm-hmm. ne loolu est-ce que c'est jaaduwul léegi il faut répondre à ce besoin là mm mm-hmm. c'est comme ça l'idée est née il faut répondre à ce besoin ñu produire foofu parce que li ñuy produire foofu mooy gën a yàgg mm-hmm. parce que boo jëlee fi jaxatu ay kaan ay yu mel noonu yóbbu ko ba Casamance ci oto oto bi ni mu yàqu-yàqu bi ak température bi métamorphose bi dafay changer un peu de goût wala dafay changer de qualité donc dañu ne il faut noonu la idée bi ñëw ñu ne lii il faut que ñu répondre ci lañ commencé di encourager les jeunes dans l' agriculture dans le maraîchage pour di produire parce que marché de Ziguinchor marché de des marchés qui sont fournis encore par la zone des Niayes mm-hmm. donc il faut que donc day commencer par idée mm-hmm. mais pour entrepreneur damay wax boo amee idée bi mm-hmm. nga am volonté bi bul xaar nga am koppar bu bëri pour mën a démarrer non non non booy commencer entrepreneuriat ñaata moo a mën a doy amul am na ñoo xamante ni dañu naan dañu commencé à zéro franc ils ont raison am na ñoo xamante ni mënuñu commencé à zéro franc mais toujours da ngay commencé lu tëj yow par exemple ci ci wàllum agriculture. Mhm. da nga bëgg def par exemple un maraîchage tu na pas besoin de faire un hectare. ok mën nga def ci un potager sur dix mètres sur dix. Mhm. dix mètres sur dix c'est cent mètres carrés. Mhm. mais cent mètres carrés soo ko defee kaane. lu mu bon bon di nga am foofu cinq cent mille. cent mètres carrés dix mètres sur dix nga toppatoo ko bu baax. Mhm. jël affaire yëpp ay engrais toppatoo ko ndànk na même avec patience au bout de trois mois. Mhm. tu vas commencer à récolter et tu vas récolter au moins sur neuf mhm. mois. tu auras minimum un cinq cent mille là loolu démarrage mhm. ay ay activité bu c'est-à-dire que toujours c'est euh, am na ay façon yi mhm. mais bul xaar pour am koppar bu bëri pour commencer mhm. une idée il faut toujours démarrer par le petit parfois ñii seen yaay moo leen di prêter dix mille francs wala que seen mag moo leen di jox euh, vingt cinq mille francs des trucs comme il faut toujours commencer petit parce que c'est d'abord l'idée ensuite la volonté nga def sa projet

si c'est la même chose avant soo amul machine pour ñaw. Hmm. mais jéem a lëkkaloo ak ay tailleur. deux hmm. tailleurs nga jox leen tissu nga ñawal leen mën nga ñëw nga di koy seet. Hmm. boo ko ñawee. bu la ñawalee nga fay leen les frais tissu nga dem nga jaay tissu boobu. ainsi de suite tu reviens encore au fur et à tu verras comment ils font tu auras une expérience en la matière. su boo solliciter financement pour jënd machine gars yi la ñu est expérience. tu que que il faut que il qu'il y ait un don de soi. en mhm. chaque chose dem dem seen bopp demal ko. voilà d'abord nga am un don de soi. Mhm. mais toog kër gi rek def sa caayin di wër naan noo kii deful dara réew mi lii doxul sa ne ça ne fait pas avancer les choses. Mhm. ça ne vous ça ne fait ça que te mettre dans une colère et puis tu restes un peu toujours non. il faut sortir il faut toujours avoir une prospection positive. envers tout. lépp loo gi ci tali bi même ki nit bu defee dara boo xamante ni jaadul mhm. il faut que nga am nga nga jàpp ne loolu ça doit être une erreur mais, au fond mhm. la personne est de bonne foi mm c'est comme ça donc cette bonne foi mhm. de tout le monde ñu jël permet aux gens mbokk moom ci ligne bi salaamaaleykum asalaamaaleykum kooku rëcc na ñàkkul dina woote waat. dama bëggoon continuer ci ci sànq di wax ci structure yi comme. Mhm. Euh, euh, DER FONGIP DER boo xoolee. Mhm. structures yu bëri nañ fi. Mhm. boo xoolee am na ay structures sectorielles. am mhm. na ay structures boo xoolee APDA. APDA mooy agence pour la promotion de l' dans l' ñuy def ay jéego yu bëri ñoom ñoo tax ba léegi ñun introduire boo xamante benn directive boo xamante état bi wala structure état bu ñuy commandé. de leur meuble. local lay doon par force. mais mun na nekk structure bi mun na décider ñuy commandé de leur ça va être des meubles produits localement mhm. donc ñooñu ñu ngi def ay jéego mhm. nga xool fonds ci wàllum garantie ak refinancement moom mhm. la commencé de 2013 ba tey def na plus de cinquante deux milliards mais nit ñi dañuy toog naan milliards fan lañu dugg ñoon gisuñu ko mais mënoo ko gis parce que nekkoo ci terrain il faut être en action il faut aller vers ces ñu ne defal lii nga dem pas découragé nga dem def ko su ñu su ñu nee demal ut registre de commerce eh, mais il faut pas demal ut registre de commerce tu ñu ne non non demal ut facture pro wala non defal yi mais il faut te donner le courage de le faire. ñu jël mbokk moom salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw waaw bi ça va ñu ngi lay siyaar bu baax. alhamdulilah. tur bi ak fan nga ñuy woowee. Euh, man maa ngi tudd usman bu Boubane nekk technicien solaire Ziguinchor. Mhm. Ousmane ñu ngi lay bisimilah pour mhm. euh, man ñooy am contentement bu baax. merci am seen émission bi ak surtout seen grande bu ngeen dalal foofu. merci beaucoup. allo allo waaw merci ñu ngi lay déglu acca allez-y. waaw waaw bon en fait c'était juste pour revenir rek moom euh, di dëggal juste grand bi lu mu nekk di wax. Mhm. Euh, sëñ bi. Mhm. man grand bi dañ ma mosoon euh, boole ak moom pour dafa amoon benn client am bu amoon problème solaire mu boole ak moom. Mhm. ci biir waxtaan. non seulement. en fait euh, client boo xamante moom moo am problème moom la bëgg ñu régler ko situation bi. Mhm. ay ay famille ñu muy ñu muy accompagner les mhm. ci biir loolu bon ma ko ne bon man entrepreneur là j'ai créé mon entreprise et tout ça. Mhm. ci ma am ci toutes les difficultés au niveau de sama projet au niveau des banques et ainsi de suite et tout ça. Euh, à part euh, à part le problème bu mu bëgg a régler avec euh, avec ces femmes. il m'a conseillé en plus. teg ma ci yoon. Mhm. nee ma non situation dama ko waroon sama méthode boo xamante ne noonu laa koy euh, noonu laay jaarale. Mhm. mu ne ma non non non jaarale ko nii defee ko nii defee ko nii defee ko nii defee ko nii. Mhm. man juste juste pour lu may woote man di rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax ci lu muy def. te di ko ñaanal yàlla. fépp fu mu bëgg a jëm. yàlla na ko fa yàlla euh, eggal te mu bañ a am ay ay gàllankoor. c'est quand même c'est en fait. une personne qui accompagne non seulement les entreprises mais mmh. qui di dalay teg ci yoon mmh. en fait sama communication bi moo Mm-hmm. moo jaarul ko rek. dëgg la pour mm-hmm. rappeler pour pour vous dire que quand même. Mm-hmm. ñu ngi ciy kontaan am nañ contentement bu baax a baax a baax a baax a baax ak moom. ñu ngi ci ñun ñu jeunes ñoo xamante ne. ñoo ngi bénéficié wu si expérience am. ak connaissance am bu mu ci am ak yoon bu mu ñu nekk di teg si yoon bu mu nekk di toog. teg si yoon. merci beaucoup doon woote depuis Ziguinchor. ak nu mu soree ak way ak témoignages yi yëpp ki nga doon jàppale ci mbirum entreprise boo xam ne dafa nekkoon ci difficulté donc yooyu yëpp nga am. non moom dama koy remercier bu baax. Mhm. parce que c'est un jeune que j'ai connu euh, a pas longtemps. Mhm. moom waa Kédougou la fu mu dans le pays Bassari. Mhm. ah boo xamante ni pour dugg foofu sax problème la. foofu la jógee mais man xamewum du Kédougou laa ko xam. benn waay moo ma boole ak comme ni mu ko waxee. mais il évolue vers euh, Ziguinchor. Mhm. dem naa bu ñu ma boolee ak moom après ma expliquer leen yu bëri. Mhm. dem naa ba Casamance gis ko en action dans les tool muy installé ay solaire mhm. mu am vraiment un entrepreneur très sérieux rigoureux. clients yu bëri yi mu installé vraiment dama gis seen témoignage. ñoom ñoo lay recommander ñun ah kii de solaire lu muy installé vraiment il est bien. moo tax ñun suñu activité boobu ñun tamit ma booy jëlal mu installé te def na foofu installation bu doy waar. Mhm. boo xamante ni insta solaire boo xamante ni mën nga toog Dakar. Mhm. actionné ko Casamance. Mhm. soo ko bëggee donc c' est quelqu'un de très bien qui avait des difficultés. et j' que ces difficultés vont se réaliser parce que il a la volonté il a le courage et il le fait. vraiment félicitations Boubane. mais mais bu ñu xoolee kon am na benn région Sédhiou. Hmm. dëkk bu ñuy wax Sansamba. am na ñaari hmm. hectares yi nekk foofu lan nga fa nekk <laughs> to wa Sansamba comme ni nga ko waxee Sansamba mhm. euh, c'est chez moi mhm. euh, man du Marsassoum laa nekk mhm. mais comme ni nga ko waxee partout au Sénégal c'est chez moi ah, parce que j'ai eu la chance de servir un peu partout mais Sansamba particulièrement euh, c'est mes premiers pas foofu lañ nekkoon c'est chez moi dama nekkoon coordonnateur FONGIP en Casamance en 2013 2014 ma jaar foofu benn jour ma gis femme yi derrière le garage. Mhm. Hmm. ñu ne ma ah mais yow di doom Sansamba nga tout ça boobu yàgg gëjoon la ma gis. Mhm. mais dañ ma gis rek xàmmee ma. Mhm. ñu exprimer ay problème dañu am deux hectares foofu amuñu dara amuñu am nañu teen mais ancienne teen la mais ah, bëggoon nañu solaire bëggoon nañu clôturer pour nag yi bañ dugg. ma jël leen ma ne leen ok ma jël seen tour président dem. bi ma demee nekk ci xeex boobu Dakar nekk ci xeex boobu parce que boobu FONGIP mënul koo jël en charge directement mm-hmm. Mm-hmm. donc il fallait que mu xool yeneen possibilité parce que comme ni nga ko waxee état dafa tëgg ay structure mm-hmm. noonu lañ jëlee structure comme ANIDA dem gis structure comme PPDC Casamance ñoo wax leen le problème PPDC mooy pôle de développement Casamance qui est logé à la présidence de la République ñoo gis le coordonnateur ak son équipe expliquer leen kii ñu ne ma lii mën nañ ko jël en charge ñu ma yóbbu leen foofu ñu gis ñu jël vraiment ferme deux hectares bi en complètement en charge ñu defal leen solaire defal lépp vraiment femme yi boobu ba tey jusqu'à présent dañu koy exploiter chaque fois dañ may naan jaaral foofu ñu jox la mais xam rek man du ma am toujours possibilité mais vraiment loolu mooy sama fierté donc sans euh, samba gis nga mu foofu mi ngi que femme yi gis nga jardin dafa am importance ci dëkk yi ci région yi xam nga gars yi dañu foog ne jardin jardin rek la mais dans les villages jardin c'est un endroit social dëkk ñu jël mbokk moom ci liñ bi salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi nga def. maa ngi sant bu baax tur bi ak fan nga ñuy wooye maa woote woon mais réseau bi xam naa moo stable. bien sûr bien sûr parce que woon. Mhm. c'était juste pour que émission bi. Mhm, euh, boo xamante ni c'est pour l'entrepreneuriat. merci beaucoup. waa suñu góor yu baax bi ngeen dalal foofu ñu koy naan bis jàll. ñëpp xam ko ci développement. Mm-hmm. Euh, képp kuy wax développement xam développement dégg nga Brice Diallo. Mm-hmm. surtout la Casamance. Mm-hmm. Ziguinchor Kolda mois moitié de Sédhiou. xam naa bu baax ci lu muy yëngu. Euh, man li ma mën a ñaax mooy. il faut que jeunesse bi ñu comprendre ni euh, liggéey bi. c'est pas parce que nga am diplôme wala nga bëgg dem def bureautique mais mun nga créer sa entreprise. nga créer sa activité parallèle boo xamante ne. dina la dina tax yow mii. Euh, jeune entrepreneur. Mhm. nga mën a jël euh, yeneen jeunesse euh, mhm. nga nga jël nga def jaaru incubation daal. Mhm. parce que boo créé sa entreprise mun na am cinq jeunes yoo xamante ne yow tamit da ngeen di employé. donc du coup loolu dina tax ba ba manque d' emploi bi dina wàññeeku bu baax a baax a baax a baax. parce que FONGIP ñëpp xam nañu ne FONGIP boo xamante ne Driss fa lay yëngu. day jàppale. groupement de femmes yi. Mhm. di jàppale jeunesse bi aussi. Mhm. mais pour ñu jàppale la il faut ñu am euh, benn projet boo xamante ne c'est mhm. projet boo xamante ne c'est palpable. parce que mënoo toog noonu nga bëgg nit ñu jàppale la te fekk ni yow mii nekk euh, ndaw. ñi xamante ne fii nga dëkk fii nga juddoo nga bëgg yóbbu sa réew mi kanam. il faut nga xam ci lan ci ban ci ban matuwaay ngay jàpp pour nga mun a jàppale sa réew mi. parce que bu ñuy wax entrepreneuriat. Mhm. pour man looloo tax ñuy wax entrepreneuriat. Mhm. bëgg sa réew. Mhm. liggéeyal sa réew. jëmale sa réew ci kanam. mais boo xoolee jeunesse su léegi euh, ci laa bokk mais vraiment. dafa des quoi dafa des. lu ñuy ñaax mooy ni. Euh, nañ ñu jàppale. ñu gën a jàppale yeneen yéen émission yéen ñii di def émission yi. Euh, ngeen gën a conscientiser les jeunes. que réew mi fii. ñun ñoo ko mën a yóbbu ci kanam. Mhm. mais il faut que mu am conscience boo xamante ne nit ñi. Mhm. ñooy xam ni. Mhm. mu keneen mënul ñoo defaral ñu suñu réew mi. ñu ñi jeunesse bi ñoo ñoo war a defaral suñu réew mi. Euh, maa ngi leen di jaajëfal macha allah. tur bi c'est vrai que ma leen. Euh, xam naa ne émetteur bi moo tax mënu ma leen suivre. mais vraiment rafetlu naa ko parce que ku mel ni Driss Diallo ñëpp xam nañ ko. Mhm. engagement am ci développement. Mhm. Euh, ci leadership. Mhm. du lu ñuy wax. parce que dafa jëf nit ñi gis ko. du côté groupement de femmes. Mm -hmm. de groupements de femmes le FONGIP mm -hmm. financé. de même que les jeunes. donc. xam naa sama sama morom yu bëri. Mhm. Euh, ñu ngi koy déglu. Mhm. te xam nañ ni dëggantaan li may wax. Mhm. du ay waxantu parce que da dañ ko foncif daf ko def. ñu gis ko ñu teg ci suñu bët. macha allah man loolu laa amoon lu may joxe comme contribution. jërëjëf maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. jërëjëf ñoom dañ koy sant di ko gërëm mais. li ngi fi li ñu fi wax yëpp. ci mbirum entrepreneuriat ak développement rien de politique kon ce qui veut dire que yaa ngi ci terrain bi à chaque fois ci wàllum développement ci li nga xam ne noonu moom moo jëm ci entrepreneuriat jàppale ni nga xam ni ñoom ñoo xamul yoon bi ñu nga gën leen xamale yoon bi. waaw gis nga mais xam nga comme ni nga ko waxee politique mais politique nag euh, politique man damay wax man toujours maa ngi ci développement bi activité développement mais damay encourager nit ñi chaque fois. Mhm. ñu engagé wu politiquement. parce que lan mooy politique parce que man je suis pas d'accord ni ñuy toog naan politique euh, lu lu baaxul la mm-hmm. lii ak lii c'est pas moom surtout jeunes yi dañuy toog du ñu def politique du ñu nekk non engagement dafa baax mm-hmm. engagement citoyen dafa baax mm-hmm. engagement association dafa baax gis nga xale boo engagé wul depuis par exemple primaire wala collège nii boo màggee dañu koy sentir ci yow dañ koy sentir ci yow tu verras donc l'engagement important ça forge. moo tax dama ne muy politique muy association. nañ ku ci mën dugg daal jeunes yi nañu engagé wu. bu baax mhm. parce que boo engagé wul par exemple ci association mënoo defal dara ci sa gox. Mhm. boo nekkee ASC man man je suis pas footballeur bu du ma seetaan football sax. Mhm. mais ASC yi ci koñ yi dama leen di xool bokk ci jàppale leen tout ça. parce que il faut que ku ci nekk def engagement ci goxam. parce que ci lool ngay am expérience ci loolu ngay am ay idées yeneen idées yi lay jàppale ci say liggéey wala ci sa entrepreneuriat. njiitu réew mi suma juumul taxawal na ko muy mm. agropole sud mm. mu nekk benn pàcc boo xam ne mm. euh, am na solo lool pour sukkali gox yi ak goxaan yi mm-hmm. donc lan nga ñu mun a wax ci projet industrie boobu euh, agropole sud mooy vraiment projet bu extraordinaire la mm-hmm. mais avant mooy wax agrosur agropole euh, bi sud sud mm-hmm. parce que agropole am euh, état Sénégal dafa jël ci plan Sénégal émergent dafa jël décision créer ay ak ay ay ay pôles yoo xamante ne pôle de développement la mhm. ci plan Sénégal émergent boobu la ne on aura trois agropoles mhm. moo tax ma ne avant may wax trois agropoles dama bëgg wax jeunes yi mhm. ka structures yi fi nekk bëri nañu mën nañ dem FONGIP mën nañ dem bureau de mise à niveau bureau de mise à niveau tamit ñu ngi def ay activités yu ñu jël ñu jël mbokk moom salaamaaleykum allo maaleykum Memba sëñ bi ñu ngi siyaar naka ñoo ngi siyaar wër. alhamdulilah lan nga ñu mën a wax ci. Euh, woy euh, man man man man la man la Moustapha Tall. Moustapha Tall waaw borom sikoor yi xam nga moom mu baax. Mhm. yaa ma gën a xam. bien sûr. waaw maa ngi gis ne yaa ngi dalal num sa magu julle jàll bi bu nekk martaasum. Mhm. allo allo waaw bisimilah. waaw di wax ne num sa émision bi ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax baax. jërëjëf. bien vrai que yéen a ngi wax ci côté côté côté côté développement bon. Mhm. côté développement soo koy wax c'est. Euh, mhm. moom rëcc na ñu ngi mhm. koy jéggalu bu baax yaa ngi doon fu am solo. donc dafa ne bureau de mise niveau ñu ngi def ay jéego yu bari. mais peut-être nit ñi xamuñu leen. ñu ngi fii Mermoz Euh, ancienne piste mais nit ñi mën nañ def ñooñu dañuy accompagner entreprise yoo xamante ne seen activité depuis deux ans trois ans am mm-hmm. seen comptabilité mm-hmm. am visibilité seen activité mm-hmm. ñu jàppale leen defal ay prime des primes yoo xamante ne non remboursable c'est-à-dire que lay jox prime boo xamante bu ñu la joxee ay millions doo ko rembourser dañu lay encourager parce que dañu gis ni li ngay def. Mhm. jar na jàppale. Mhm. nga xool DER ñu ngi def ay affaires yu intéressant mhm. te nga xool yeneen structure donc structure macha allah bëri na wax naa affaire ANIDA. ANIDA ñu ngi defar ay fermes yu def nañu fii plus de plus de cent fermes euh, naataange. jox ko ay jeunes defal ko bu baax ferme d'un hectare def ci teen def ci solaire def jox ko jeune nekkul liggéeyal mhm. donc c'est important état vraiment état du Sénégal mu mhm. ngi def ay jéego yu bëri mhm. moo tax ñun loolu la wax souvent dañu naan Macky c'est un homme de développement c'est un homme de développement donc euh, euh, pour revenir aux agropoles pour dire que dañu jël décision jël inspiration ci pays bu ñuy wax Malaisie xam Malaisie dans les années soixante Afrique fii la ñëw uti ay plante euh, de de palmier. Mhm. ñu dem Nigéria Nigéria may leen ay palmier. Mhm. ñu dem bàyyi ko foofu. Mhm. les palmiers là dans les années soixante dix. palmiers yi un à ñu bàyyi ko mais aujourd'hui Mali dañu am plus de million trois cent mille hectares. de palmiers. les premiers producteurs de d'huile de palme au au su dañuy defar ay saabu. Mhm. ñu def tamit ci mango yi. Mhm. dañuy ñëw jël uti mango yi fii ci Afrique. Mhm. dem bay ko am nañ trois millions d' hectares de mangue. di ko produire mais loolu fan lañu ko ci benn système la ñuy wax système d' agropole. agro bu mooy dañuy toog xalaat. sur un an wala sur deux mois wala dañuy yéen a yéen ay choisir daal temps bi. xalaat nee na tel endroit. lan la ñu a def fii. pour ñu def développement bu gaaw mhm. mooy le lab mhm. mooy lab mooy ingénierie dans euh, qu'on appelle ingénierie euh, fast result mhm. les résultats rapides ñu toog ñu xalaat ci Sénégal fii loolu président Macky à travers le BOS le bureau opérationnel suivi du plan Sénégal loolu en juin et juillet deux mois au méridien président boo xam ne dañuy invité acteur Casamance parce que dañu ne trois agropoles mais le premier qui va démarrer c'est l'agropole sud ensuite ensuite euh, à l'Agropole Nord. Mhm. donc Agropole Sud boobu ñu invité acteurs sud yi yëpp. Mhm. depuis les gouverneurs jusqu'aux producteurs ñu invité leen fii Dakar. Mhm. avec d'autres structures ñu xalaat pendant deux mois naka la ñuy structurer agropole fan la ñu koy installer naka lay doxe ñu def structure ñun yàlla def ñu bokk foofu représenter fonds yi ci loolu ñu bokk foofu donc bu ñu defee structuration boobu ñu Adiane koy installer sur hectares il y milliards d'investissement 40 milliards investis par les acteurs privés. Mmh. et milliards par l' mhm. état. bi nag dem na ñu ne ko état yow tey boo xoolee banque locale ma sànq wax nga banques yi. Mhm. banques yi ñun dañoo am malheureusement des banques commerciales. Mhm. boo xamante ni eh, du développement mais commerce. la ñuy def donc banque commerciale yooyu. Eh, eh, seen sañ-sañ du ñëw financer suñu développement. moo tax état créé BND banque développement économique ba tey des na ci banque bu donc il faut trouver des. euh, l'État a signé des accords récemment avec la Banque islamique de développement avec la BAD. Mm -hmm. pour ñu jël ay fonds pour ñëw def agropole boobu. Okay. parce que loolu bu ñu ko defee Casamance. Mhm. man wóor naa ni. Mhm. affaire euh, mhm. problème de paix bi tout ça dina dina ñëw installé wu de façon. au définitive parce que nit ñi dinañ am fu ñu mën a liggéey euh, transformer kaju bi transformer mango yi transformer maïs di ko produire. donc loolu mooy agropole sud c'est quelque chose à. vraiment magnifié. ki nekk ci machine bi mu may signaler ne mhm. benn minute moo ci des tey boo mhm. amoon tey gërëm mhm. euh, ci benn minute boobu tey euh, lan ngay wax ñi la doon déglu ak ñi jot a wu ci sa compétence ñi nga jot a jàppale ci wàllum entrepreneuriat yëpp ñi fi dugg joxe seen témoignage yëpp lan nga leen di wax en un mot. man en ah, d' damay gërëm ñi dugg def seen témoignage. Mhm. Ah, am na ñoo xamante ne xam naa leen am na ñoo xamante ne leen. Mhm. di leen bu baax. Mhm. Ah, vraiment ñoom Khady Diatta ñoom Boubane ñoom docteur Annette di leen bu baax. mais di remercier population Marsassoum parce que foofu laa soo xeexoo. la population Sansamba. donc comme sànq wax naa avec le le maire Seyni koy nuyu bu baax. mais remercier population Marsassoum yëpp. foofu ak suñuy gouverneur gouverneur Habib Léonard. mais remercier sama famille tamit parce que man ma ko waxee tooguma Dakar damay voyage te loolu ci compréhension famille bi la. Mm-hmm. ba minuit nga nekk ci ay activités il faut famille bi ko comprendre. Mm-hmm. et puis di remercier président Macky Sall. boo xamante moo ñoo créer cadre bi. Mm-hmm. parce que xam wax naa la trente millions entrepreneurs en en 2006 2007 ñëw à 5 à 10 milliards mais 2006 2007 Macky Sall moo nekkoon premier ministre. ok moo tax mu yéeg foofu. la mu ñëw <laughs> mu ñëw nekk président yóbbu ko 80 milliards. Mhm. donc c' est important. Mhm. ñu koy ñu koy remercier bu baax. Mhm. di remercier suñu vraiment suñu patron yi fongé ñoom du cas. remercier vraiment tous les acteurs. mais particulièrement le président Macky Sall et la famille. merci merci beaucoup mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm Adama Diallo moo nekkoon ci xarale gi rek. sante leen gërëm leen di leen jox dig daje ba dimaas mais benn yóbbante laal fàtte wax am na ku nekk fi suñu directrice la moom dafa bëgg mbay tey moom nan la war a def tey ba jaar tey ba am tool tey ci diwaanu oh, Casamance moom moom dinaa ko jël léegi à côté parce que xam nga wax naa la man baykat laa am <laughs> nañ suñu tool dañu organiser boo xamante ne dañu jël ay man maay président bi foofu moo tax ma ne la je suis chef uh-huh. a au moins sept jeunes boo uh-huh. xamante ñooy yëngati yooyu ci dix hectares en Casamance uh-huh. ñu bay noor bay nawet actuellement nii nii sax ñu ngi installé ay bassin foofu maa ngi leen di nuyu foofu sans plaidoirie bi plaidoirie bi ah, Pape Sané yóbbante naa la ko kon donc <laughs> daa mel ni faj nañ sa aajo kon mbokk yi sant leen gërëm leen di leen jox dig daje ba beneen dimanche incha allah rabbi